VIP People TV, VIP People TV, le site des grands événements partout à travers le monde. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Pour vos pipes et reportages, n'hésitez pas, appelez tout de suite le 77 106 85 24 VIP People Dal. fa lay ci caatu Cheikh Ibrahim sama bay am lum liggey ci aduna bi ma dekk bir senegal nañ waxante deug nañ waxante deug ndax lolu yeen war ngeen ko setan tay war ngeena tok di tag di tag Macky Sall ci lolu yeen ay njabotu Cheikh Ibrahim taxaw di ko tagg moom naan defal lañu defal nañu la ba pare ñu jël caatu Baay Ñas bi top ko bam daw dellu amerique ci loo xam ne ci ay dëgg rek laa taxaw gis dëgg joteewu kenn dëgg laa gis di wax dëgg nañ leen waxante dëgg waaye te bàyyi suñ caaxaan yi nañ bàyyi suñ caaxaan yi nañ bàyyi li ñuy wax te gëmuñ ko ngir alal nañ xam ne ëllëg dañuy dee te bu leen jàpp ne képp ku dee na nga xam ne bés ba ngay dee bés boobu mooy sa mbugal suñ waxee ñu naan waaw nu mu mën ci doon ci famille bi maa ci mel nii yee amul problème parce que man maa nekk bañkat kenn du ma noot ci kaw àddina kenn kenn kenn du ma noot ci kaw àddina loolu dama koy wax kenn du ma noot am naa kilifa nag sama kilifa mooy sama sëriñ cheikh mouhamadal maahi ibrahima ñas su ma waxee léegi na ma sukkal nga raam wallahi laazim ma raamee ba fu mu bëgg su bëggee yeeg sama kaw ma boot ko ndax mooy sama cheikh ibrahim te cheikh ibrahim ñas rek laa bëgg lu may kaas du dara li may xeex du dara li may xeex yépp pour njëriñu Kaolack la ak njëriñu Medina Baye gi ma dëkk loolu rek laay kaas kaasuma leneen soxlawuma leneen dama bëgg ñu xam suñu bopp xam ñun ñooy ñan xam kan mooy Cheikh Ibrahima ak lim ñu liggéeyal ñu bàyyi di tagg Macky di wax naan marina Baye lim ñu defal ak lim ñu defal lan la ñu defal na kenn taxaw ne Macky Sall jox nañu ñun ñun njabootu Baye gi lan lañ ko mus a lekkal man de cent vingt mille lañ ma mës a jox cent vingt mille yi ma delloo ko papi may ma yaa ngi oote cent vingt mille lañ ma mës a may cent vingt mille yi ma delloo ko te moom lañ mayoon njabootu Baay Ñas bi yëpp ci gàmm wax ma ban njabootu Baay Ñas ku mën a taxaw nañuy bàyyi nañuy bàyyi di diaboliser di wax ne Macky mu ngi indi lii mu ngi indi laa ci Médina Baye mu ngi def daal gisuñ ko man de ci njaboot gi laa bokk gisuma ko gisuma ko musuma gis gis barke Cheikh Ibrahima VIP People TV, VIP People TV, le site des grands événements partout à travers le monde. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Pour vos pips et reportages, n'hésitez pas, appelez tout de suite le 77 106 85 2 4 VIP people daal fa lay lépp di leere